monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg dee ak tàngaay fii nii. waaw. Ba na nga def. metti na. xam loolu moo tax nag ma indi la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni. moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. verre bii nag moo la verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am climatisation mais ça ne va ba tey doxul. le noonu. léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. ndax ngërëm dañu yilif da ko yilif moo koy gërëm ngërëm la am solo gisuñ mu tàkkay kilifa waaye ku fas sa leen a gërëm danaan sant ñi mu koy sant ak ñaanal ñi mu koy ñaanal da ciy boole gërëm waaye mi ngi sakku ngërëmam nee na ba loolu jàllee bi sur Mbàkke monsieur Abdou bi nee na jël na sant googu mu sant sëriñ mu tàkkaa ak ñaanal di ko ñaanal dugal ko ci jëmm nee na bu loolu jàllee sant boo gii mu sant sang ya Cheikh Mamadou Dakhla ak Cheikh Mamadou Bachir dayal na sant bi ci jiw yi nga xamante ni moo fi nekk na Cheikh Mamadou Dakhla muy muy euh, alxaaji Mbacke yu fay mu baax mii nga xam ni moo taxaw ni liggéey bii ba mu toll ni mu toll taxawee ci jàmm taxaw ko ci yitte am ak maandu la ak ku muñ moom ngi ci fii tey sëriñ bi nag nee na li neex lii nii sëñ Mbacke yu taxaw ànd ak kilifaam yii loolu dong mënul si ko maam maam si gën a a yem faam ak bëggam doon lenn lu am ay muy ndam ñoo xam ni ndam li muy ndam ñoo xam dina ràcc plus Sëriñ Tuuba li ko Sëriñ Tuuba wax ci xës na wax Rasulullah lawoo manaqib lawoo ajaib lawoo xaraib min al-jahal nga koy tam ñu bari di juma ji ci tàgg Sëriñ Tuuba ko waaye loolu nag sax ci Ibrahima li mu ñëwee Dakar la doon yéeneem mooy lii am waaye jëf na ko nag mu boole ko yéene ak jëf ana nu mu ko jëfee ñëw Ndakaaru 1895 59 ans di tàggatoo bi mu ñëwee ba sëñ Tuba amal na génn wëtu ndax dañ di wut dara waat dañu ko dafa am lu ma bëgg foog sëñ Bamba ñu ne ko mu ne suuf su ma ko liggéeyee su ma ko ko jébbalee mu liggéeyee ci Mouhamadou Rasulullah sangam mu doon suuf. Fall amul lu dul jëf jëf yàq dëkk man Sori Fall rakkam la ñu jox ko suuf yaatu su ma defoon dafa ñeenti kilomètre ba juróomi kilomètre dafa tàmbalee huit vol bi yàgg huit vol bi yàgg ba pare présidentiel gisu ko man Sori Fall loolu moom ko jëlee ji xam-xam sëriñ ko du sa ko toog ñii toog am naa ne man sax sànni nga sànni si la ko moom boobu am na si amaguñ jëmale sowu bi rëbës diitu ko géej loolu muy dëkk lébu yi ba loolu amee nag dëkk lébu yooyu yii ñu di jël seen njaay di ko indi ci maam Cheikh Ibrahima Fall teg ko ci garab boobu ak sal kuy jënd ñoo di fi kuy kuy jënd dara nga demal nga sànni dem kon bokk sa jënd sànni nga moom barkeel la li nga doon suñu Ibrahima Fall tax. Ibrahima nekk fa Ibrahima Fall moo ko woote kër ko fa mu ci kër ba ñu seeru ni ci sëñ bi daal koy mën yóbbu ak delloo gi mu delloo ak borom Tuubaa Xaadimu loolu maa ngi ko jëlee jëm ci sëriñ Mamadou Diarra Fall wëññi si Fall mii ko kii dox ci sama saak. ku ma doofee ñu nga lay delloo am nuyoo ak ak siyaar nangoon nañu la daal di nga xamante ni moom la ñu tuddoo ndax su fekkee xaalis bi. Ibrahima Fall xam ni sëriñ Tuubaa dina joxe ak tubaab bi te booba suñu yoonu murit bii nit ñi nanguwuñu nit ñi nanguwuñu ko te bu gën a wutal ko baax ci dara bi loolu sëriñ Mamadou Talla Fall ni na benn gouverneur général bu ñu wax gouverneur Ndoye Dior moo laajee sëriñ Fallou Mbacké boole maam si Ibrahima Fall ak Aliou. ndax li ko dem jënd fa jënd foosé ko boo ko demee nag am jënd fa kër jënd ko daal muy muy teg ñett naan ngir teeroo ko borom Touba mu daal di génn bitim Ndar nee na nee na kër gànca gànca ñett Ndar sëñ Mamadou Talla Fall ni na permis d'occuper waaye ba ko Talla Fall amee forcé ko tàngoor ko borom ci fàggaat bi aussi ñëw ndànk am ko juróom benni loo di forcé ko tàngoor ko borom ci fàggaat bi aussi ñëw kees jënd fa di forcé di faal di gàmmoo yàlla sa yàgg gàmmoo kër ga ñaari loo la si ma ñaari loo la tàngoor ko borom ci fàggaat bi aussi par fa ñetti daal ay lu def bët daaru xit bët yi daaru pay ngir tàngoor ko borom ko baax gaadi ko si kon nag ba loolu waxtaanam ci Ibrahima Fall bind foote ko ngir jëmm sëriñ kon bu loolu amee sama sama ci Ibrahima Fall boobu mu di diina saanam si Ibrahima Fall sëñ Mamadou Talla Fall nee na moo lijjanti këy bi ñëw sëñ Touba gànnaar indi ko Jolof ba mu am jot lii te sëñ Touba fu mu mën a dëkk ci réew mi maam si Ibrahima Fall moo koy moo ko moo koy sëñtal te booba gàtt fa 1907 mu dem sëñ Mamadou Talla Fall sëñ Bassirou Fall sëñ Mamadou Talla Fall sëñ Assane Xëri Diop daaw moom Xëri Diop moom sëñ Mbacke Fall Abbas kii di sa maam maam si Ibrahima Fall wéyal liggéey ba jóge Thiès 1916 fekk si Tuubaa ci borom Tuubaa Thiès ba mu nga fekk see Thiès sëkk fa ñaari kër génn kër gi mu tudde ko Makkatal mu karam gëj a def mu tudde ko Madinatul Munawwara muy mbir ak Makka la yore ba loola amee ko baax ki ni ko dama njax wetti li ma Habiboulahi ndax bi ma nekkee ca sama tukki bi ci géej gi ba ma tolloo dëkk bañ la Congo Habiboulahi feeñu na ma ñaari yoon ni ma Ahmadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma yaa ngi ma bàyyi fii ma wéet waaye fii la ma féete bu ma fi féete woon dama la bàyyi ma wéet saa mag si Ibrahima Fall ba mu ne bërëb laajut mu jëfandikoo baati ndax mag si Ibrahima Fall dafa am ñaari cër yu mu yor muy lan muy cëru baati ba sëkk boo demoo ci bâtiment si Ibrahima Fall dañuy yëg waaye ma am na xelum xel mu mag mu gudd te rëy te rafet loolee boo demoo ci am xelam itam da nga naan xelu maam si Ibrahima Fall kenn yëru li dal Sëñ Tuubaa ko li dal Sëñ Tuubaa moo si Ibrahima Fall Sëñ Tuubaa nag wax nee na man dama juum allahi man li xaada bil Mustafa sar'a tawakkaltu abdan xaadiman laa ara sar'a sama njuumte man def na mu xam ne kenn ko mu bàyyi boo daal wax Sëñ Tuubaa maam si Ibrahima Fall ba mu téegee ci baatin te boobu nga xam moom Abibulaay mii di xuru mu tiim tiim baatin moom Abibulaay bi sànni ko njax mu dem gor njax kër ma jéey dëkkal fa mbooloo am fa daara xool leeru moom Abibulaay gi mu sànni ku dar rayim sëriñ ma Talla Fall ñu ci mbind ma mu ñëw gor dar rayim nee na ñetti at la ko seera Fall bay xool mu leeru mam Abibulaay ji mu sànni ko gébb faal muy daaru muhit mu ñëw gébb gor gébb dëkkal fa mbooloo dëkk fa am fa kër am fay daara xool leer gi mu sànni ko Baxdaas mu dem gor Baxdaas am fa daara dëkkal fa mbooloo xool leer gi mu sànni ko mbaam faal muy Touba Fall Cheikh Mamadou Lamine mu borom Touba Xaadimu mu moo ko tudde Touba Fall muy mbaam faal moom mu ñëw Touba Fall gor ko dëkkal fa mbooloo Cheikh ma Talla Fall ni na léegi Touba Fall pont de la pont de traite la moom mu loolu loolu la wax mu dëkkal fa mbooloo bënd fa teen am fa daara xool leer gi mu sànni ko waando waawa muy Kawsara mu ñëw Kawsara bënd fa teen am fa daara dëkkal ko mbooloo mu xool leer gi mu mu sànni ko déeru Fall gojo fi fi im sa mu dem dooru fal gojo bënn fa teen am fa daara dëkkal ko mbooloo mu xool leer gi mu mu mu sànni ko madinatu muy ngigis ba mu demee ngigis nag la ko ko baax la ko baax ki yónnee ni neel Ibra Faal njax kër gàmmu kan laa wax kër gàmmu kan daal di jël sëñ bay jaxate yabal ko njax kër gàmmu kan ne ko na nga dem njax kër gàmmu kan fële Abibulaay nekk waaye boo demee na nga jaar caaxu boo demee na nga laaj si mataan jaay saaxu boo demee lu ma la lu ma la tegtal lu ma la jox ba nga xam barab ba dinaa yebal Ibra Faal mu ñëw nga won ko barab sëñ ba jaxati ba mu ñëwee sëñ ba tàndaay saaxo moo ko ni maa ko fi denc maa ko fi denc daal di jël ëllëg ba mu yoroon ni fa nga ko denc nag ak neb-neb moo fa saxan ci kaw janjub detti mbeer su ma fa fippul neb-neb ga mu dundit dinaa fa fekkal bokk ca neb-neb ga ba mu ñëwee fekk neb-neb ga daana waaye fekk na fa buut ba mu daal di jël ndajul ëllëg ba fiñ mu jàpp loxoom sëpp ko tëral ko mu jublu teer ko mu ñu fii laa ko defal mu daal di mandargaal moom sëñ Mbay Jaxate mandargaal barab ba dem ci borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ne ko ne ko ne waa naa barab ba moom mu ne ko Ibra Fall day day nit ak lëf nit ak dara mu doog a daal di woo maam si Ibrahima Fall ne ko demal Xuuru Mbàkke boobu ndax te Xuuru Mbàkke kat tuddul Xuuru Mbàkke saam la tudd Njasaam ba léegi ci turu Njasaam la ñu fay leen ko ndax ñu nga jógee ñu nga jógee njakkan njakkan la ñu jóge ba ñu jógee njakkan diggante njakkan ak ak ak fii xur Mbàkke nekk aw xur ne fi ba waa ba waa njakkan dee witti mbuum nen dañ dem ci xuru waa Mbàkke wa suñ dee taxan nen dañ dem ci xuru waa Mbàkke wi di ci turu xuru Mbàkke mu fi sëñ Bay Jaxate saa maam si Ibrahima Fall ba mu jógee njaarim di ñëw mu nga jëkka jaar tëbbu kër Balla Fall tëbbu kër Balla Fall ak fee feeni ci ñaari kilomètre toll sëñ Bay Jaxate ni ko yëgsil ba mu yëgsee moom maam si Ibrahima Fall ba mu tiimee bara bu maam Abibulahi bi ba mu ko yëree ba mu siggee danga sar sarale doom teexee doom aw sëñ Bamba a barab baa ngi nii doom saa batu rasul yi saa yu ñu siyaare Abibulahi bunt bi ñu jaare ngi kenn sa ko lii moo indi